chers téléspectateurs de la 2STV ñu ngi nii ci deuxième partie émission bi euh, ñu fas yéene waxtaanee ci entrepreneuriat tey nag ñu dalal fii suñu benn jigéen joo xam ne ni jigéen ju ràññeeku la ci génie civil mi ngi tudd Ndeye Marie Aïda Ndiéguène Ndeye mari Aïda Ndiéguène nekk jeune ingénieur en génie civil nekk activiste environnementaliste mais tamit nekk écrivain créé na propre entreprise am bu tudd Ecobuilder MS spécialisé wu lépp li nga xam ne mooy méthode de construction des matériaux recyclés et naturels lu mel ni ay hangar ak ay euh, usine de ay euh, bâtiment de stockage yoo xam ne ne pour agriculteurs yi la bon elle a été elle a reçu le prix de première entreprise la plus innovante lors du forum de jeunesse 2017 fan yii si at yi ñu génn euh, maanaam at yi ñu génn bi waa Royaume-Uni tamit ak waa Californie desal nañ ko ay prix yoo xam ne ne prix Innov Expresso Innovant Challenge la Euh, ak euh, modèle business Ashoka compétition euh, Ndeye Marie maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Omar di nuyu Pape Sidi di nuyu téléspectateurs yi. aussi bu baax delloo ziar riche allah. toutes nos félicitations bu nekkee am na lu ma lu ma fàtte si distinction yi nga jot am <laughs> waxaale ko. je pense que distinction yi bon bu ma ko waree citer instant yi moom dina bëri trop te. <laughs> <laughs> on va prendre beaucoup de temps mais c'est pas l'essentiel. Mm-hmm. mais euh, déjà li nga jot a wax euh, c'est c'est déjà moi ah écrivaine la en même temps nekk euh, entrepreneur en même temps ma nekk activiste environnemental. Mm-hmm. c'est-à-dire que projet yu may lu may defar yëpp dinaa si dugal touche environnementale bi. Mm-hmm. li nga si dugal touche environnementale nekk na lu am solo. bon Naïma Aïda Ndiéguène moom c'est une jeune fille comme euh, euh jeune fille yëpp de mon âge ah avec les mêmes préoccupations mais en même temps euh, depuis bu ma nekkee xale dama bëgg entrepreneuriat donc euh, innovation te euh, le moo tax à l'âge de vingt ans mettre en place mon entreprise il y a de cela cinq ans. à l'âge de vingt ans nga mettre en place entreprise. Mm-hmm. Euh. à l'âge de ans de fii ñu ngi aay ba <laughs> intéressant à l'âge de vingt ans nga mettre sa entreprise mu tudd Ecobuilder MS lan mooy Ecobuilder MS. Mm. Ecobuilders en fait euh, mooy contraction éco ak builders éco comme écologique builders comme euh, constructeur maçon. Mm-hmm. te lan moo tax ñu tuddee ko noonu parce que ñun euh, construction yi def c'est assez particulier dañuy utiliser pneus yi bouteilles yi sachets en plastique et aussi matériaux naturels naturels locaux c'est-à-dire euh, matériaux yooyu. Euh, suñu maam yi matériaux yooyu dem utiliser ñu ñu def ay jàngat gis ni que matériaux yooyu dafa am ay propriété te am na solo mhm. mu nañ ko utiliser pour conservation ak stockage mhm. léegi ñu jël ko euh, defar suñu modèle de construction utiliser matériaux naturels ak matériaux recyclés yi defar si ay néegu dencukaay pour euh, béykat yi hmm. mhm. yow daal sa sa xarañte ak sa expertise da nga attribuer si environnement ak écologie mais tout mais tamit dimbali ñi nga xam ne mooy agriculteurs yi mhm. que ñu gën a mën a conserver wala ñu gën a mën a améliorer mhm. seeni culture waaw ouais, exactement parce que boo gisee euh, si chaîne de valeur agricole bi am na ay problématiques yu bëri am na ñuy ñuy essayer di di defar ay solutions si wàllum irrigation et cetera mhm. ak semence et cetera mais dafa am benn problématique dañoo def ay jàngat pendant plusieurs années gis am na benn problématique majeure te problématique majeure boobu mooy problématique stockage ak conservation soo demee Kayar dem Moro dem Noto ni nga gis ni que par exemple autosuffisance alimentaire bi ñuy wax ci certains produits comme pomme de terre oignon et cetera am nañ ko Sénégal mais chaque année dinañ perdre un tiers de la production. ndax problématique boobu loolu dama la koy confirmer Pape Sidi tey suba bi may ñëw les cultivateurs de Noto nee nañ ils ont triplé le record de culture l'année dernière mais malheureusement li liñ triplé ci record ils risquent de perdre euh, les trois quarts. ndax ndax amuñu ku ko jënd. ak tamit amuñu moyen pour conserver ces pommes de terre e tous ces produits maraîchers yi ñu defar. Hmm. mais yow li nekk ci Mayga Ndakaaru li ñu produire euh, nooto noonu. benn jour la ko gars yi di doon. <laughs> non c'est peut-être drôle mais imagine. dans chaque coin de rue ni mu amee boutique noonu la amee Mayga. Mayga bu nekk au minimum dina jaay benn euh, disons allez on va être réaliste c'est cent personnes. Mm-hmm. boo amee. si benn quartier bu tudd parcelle 300 mayga multiplié par cent ça trois mille 3000 personnes ku nekk bu jëndee 200 francs pomme de terre si benn guddi mais li waa nootu produire xaaj bi jeex na va à Guédiawaye va dans le Sénégal mais c'est-à-dire est-ce que du dafa am produit bu fi nekk boo xam ne bu ñun suñu cultivateurs yi wala suñu agriculteurs yi produire produit boobu mooy concurrencer suñu produit parce bu dee pombiteer rek boutique boo dugg war na am ay saaku pombiteer mhm. di ko jaay pour ménage yi mhm. pour ñi koy utiliser parce qu'on mange ça mhm. mais bu fekkee li ñu produire ñoom ñu ngi koy dugal ci bërëb yi ñu koy jaayee donc warul am problème non li nga wax noonu am na parce que il a dit ñoom dañoo am problème mu dafa am concurrence bu fi nekk voilà léegi nag mettre ñu en valeur ñoom seeni produit voilà tamit wax na ko si ça c'est un loolu problème la mais c'est-à-dire avant sax ngay dem si wàllum concurrence bi boo béyee ba pare nga jël 3 mois 4 mois wala cinq mois war nga am fenn fu nga koy denc. Mhm. déjà loolu première étape bi la. après bien sûr si chaîne de valeur agricole am na yeneen étape mooy étape de la commercialisation. Mhm. maanaam ñi ñi war nañ am ay marché pour commercialiser seen production. mais avant ñu koy commercialiser soo bayee ba pare nga am sa trois tonnes cent tonnes pomme de terre war nga ko mën a denc te tey jii boo gisee loolu ay ay ay statistiques yu ñuy am la zone Kayar rek di nga fi perdre 10 en terme de pommes de terre par année. 10 milliards c'est-à-dire di nga fa dem am fa ay pertes yu bëri te yooyu béykat yi chaque année dinañ manifester wax ci. te euh, lan moo tax ñu am aussi modèle local boobu parce que modèle local boobu aussi c'est un modèle accessible c'est-à-dire aujourd'hui stockage ak conservation am na ay modèles mais modèle yooyu de un dafa cher de deux c'est pas adapté parce que euh, modèle yi ñuy importé c'est pas parce que modèle boobu dina marché si beneen ak réalité climatique yu nekk foofu que dina marché Sénégal mm-hmm. moo tax. il faut ñu développer suñu modèle local il faut aussi problématique u stockage ak conservation ñu ñu jël ko au sérieux ñu ngi produire mhm. production bu toll ne ñuy am problème fu ñu koy denc ak nu ñu koy yàqee mhm. ci diggante ñetti weer li Sénégal di produire ci pomme mhm. ndax boo daggee at mi ñeenti ñetti weer moo ci nekk ñetti weer benn yoon ñetti weer ba muy ñeenti yoon nga ciy am léegi pourquoi pas ñu wàññi suñu taux d'importation dañuy importer ji pombiteer ñu ngi bay pombiteer mhm. nañu xaar ba lu ñu yor jeex ñu door a importer ji voilà comme ça ça à nos euh, agriculteurs mhm. et euh, de d'avoir une marge c'est exactement ça mais léegi suñ ko bëggee lekk pendant toute l'année il faut que yow nga mën denc sa pomme de terre parce que pendant boo par exemple bu ñu waxee mois de mars wala avril nga consommer une partie les mois qui suivent nga mën a consommer mais da ngay ñëw nii période tabaski par exemple du am pomme de terre parce que pomme de terre yu du ñu am fuñ koy denc. Mhm. day yàqu te fu ñu am bu ñu amoon fu ñu koy denc dinañ mun def prévision. te yow sa société day proposer ay services yoo xam ne nag man dana permettre ñooñu noonu ñu mën a conserver seen ñu mën a conserver te euh, pro service boobu testé nañ ko am nañ ci euh, euh, deux modèles yu ñu implanté premier modèle bi c'est il y a quatre ans dans la zone de Kayar. zone de Kayar euh, zone de production la par rapport ak la pomme à la pomme de terre te conservé nañ te béykat yi sax instant yi ñu ngi laajte pour ñu am benn programme d'implantation bépp béykat am benn modèle stockage. Euh, je regardais des images tout à l'heure de Ndeye Khady j'aimerais vraiment comprendre maçon nga wala lii lan la yow masonga <laughs> nga. man ingénieur la mais euh, technique de construction bi ñu utiliser technique de construction innovante la maanaam boo demee euh, euh, maçon yi il peuvent pas faire ça au début. il faut nga woon leen exemple. ingénieur c'est pas c'est pas forcément doo doo. tu mets a la main. pënë mhm. nga jël nii pënë nga jël. pënë la pënë la waaw dañuy utiliser pënë. mais loolu ban bi. ban bi waaw ban bi lan moo tax ñu koy utiliser parce que ban bi euh, suñu maam yi dañ ko dem utiliser c'est pas pour rien ban bi dafa am propriété. Hmm. te propriété yooyu mooy tax si biir hangar bi di nga am différence de température entre l'intérieur et l'extérieur maanaam si biir day sedd. te loolu je pense que ñu nekk ci village yi ñoom xam nañ ko. parce que soo jëlee ban bi nga tabax ci day sedd tout le temps moo parce que ban bi dafa am propriété. mais au Mali y a une mosquée. qui a mhm. fait presque deux cents ans. Mm -hmm. les mosquées de Tombouctou. les mos mosquées de Tombouctou même le Massina. Mm -hmm. dans sa dans sa globalité. Mhm. on voit que des constructions en argile. oui mais ça a c'est efficace pour conserver des des, des produits frais. oui oui d'accord. ñu dem ñu teste ko ñu ñu ah ñun ñun daal. Ah. yaa ngi yaa ngi wax si sa ndorteelu wax ne à vingt ans nga lancé sa start up. Mhm. waaye ma nuyuwaale Maguette Mbaye sama xarit la. TikTok la nekkee kër ga. soo bu génne teen teen teen teen teen am defante estati whatsapp yi buy anniversaire yorul juróomi dërëm mais vingt neuf gato lay jënd nii voilà léegi nag. ngeen nekk fii di ñu fay. yow nag xoolu Kadhafi kii <laughs> ba. Ndeye Marie épouse-moi épouse-moi après l'émission s'il te plaît. <laughs> Euh, à vos débuts euh, à c'était facile c'était difficile parce que c'est un peu choquant ñu gis une fille de vingt ans ñu mun a de mu créer start-up ça a été facile ça a été difficile. non ça n'a pas été facile. Euh, deuxièmement nga ne da ngay tabax ak matériaux recyclés maanaam ay pneus ak bouteilles ak. dans le monde rural. te tout le monde connaît la réalité du monde rural. Mhm. c' est pas comme ça ngay ñëw rek génn rek ñëw ne da may implanter benn projet foofu il faut que population yi aussi ñu am ils sont qui sont par rapport à ton projet. Mhm. te loolu euh, ça nous a pris quand même quelques années. Mhm. ah deux ans nga xam ne def nañ ay ay tournée dem gis béykat yi parce que problématique bu ñuy traité nii nekkul benn problématique dañuy tëb rek ne problématique li problématique ku béykat yi la non non. dañoo dem si zone rurale yi ñu def ay jàngat waxtaan ak ñoom. bu ñu defee ay jàngat ñu gis ni que béykat yi pour plus de 90 pour cent problématique stockage ak conservation la ñuy wax ñu ñu am ay expertise ci génie civil ci architecture ñu ne dañuy créer suñu modèle mm-hmm. mais modèle boobu boo ko bëggee créer boo ko bëggee créer en même temps aussi il faut nga am zone d'implantation de ton modèle mm-hmm. te loolu maa ngi remercier la euh, mairie de Kayar parce que euh, maire le maire de Kayar yàlla na ko yàlla yërëm Niasseka mm-hmm. euh, moo ma accueillir buubu maa ngi yor sama sac à dos sonn le tour ah mais ñenn ñi di ma wax ay ah est-ce que lii dina marché ñeneen di mais man dama dem ci moom ne ko lii mooy sama projet fekk maa ngi yor benn document ma rek ma sama document dem. mu ne ma soxna si tegal sa document ma teg ma document mu ne ma lan lan nga bëgg a defal lan mooy sa projet. Mhm. ma ne ko franchement li ma buggoon mooy euh, defar ay néegu dencukaay parce que dama gis ni que déjà seen zone rek. di ngeen perdre dix milliards ndax problématique boobu te chaque année ngeen manifester. Mhm. mu ne ma yow mun nga ko defar. Mhm. yow mii <laughs> mu ne ko waaw mun naa ko defar. Mhm. mu ne ko léegi ñëwal ñu génn mu may la terrain d'implantation koroon ma ndax sa modèle dina marché ñu def mu defal ma ko défi. mu ne bu défi là je vais le relever dinaa ko relever te sama modèle dina marché pendant période boobu ñu tabax suñuy hangar béykat yi di ñëw ne ah yow de je pense que hauteur bii nii bi ngay def. mënu nga ko wàññi par rapport ak aération bi suñu pomme de terre de je pense que lii nii mooy gën ñu jël remarque yooyu en compte c'est-à-dire que soo buggee euh, euh, euh, kii difficulté yi il faut nga liggéey ak nit ñi munoo ñëw si zone locale bëgg a defar solution pour baykat te doo waxtaan ak béykat yi mm-hmm. doo leen déglu te loolu moo tax solution bi aussi en partie de la leen di remercier mm-hmm. parce que ñoom ñoo tax mu marché su ñu ñëwul woon ci suñu chantier su ma nekkoon si chantier bi ne man maay ingénieur waruñu wax parce que ñoom ay béykat lañ te ñoom ñoo xam seen produit mhm. solution bi du marché mhm. léegi nga nga nga défi bi foo mu jóg moom ça marché parce que depuis quatre ans solution bi mi ngi marché te béykat yu doon wax amoon na benn parti yu doon wax a ah, dina marché ñeneen ñi ils étaient sceptiques mhm. ñu nekkoon sceptique nag instant yi ñu ngi wax bëgg nañ ci parce que mi ngi marché très loolu mooy preuve bi mais <laughs> étant une femme parce mm-hmm. que doo subir yenn yenn yenn yenn yenn manque de considération wala mm-hmm. yenn kàddu yu ñaaw. Mm-hmm. ñu naan xale bu ndaw bi wala jigéen bi moo ñuy. moo ñuy wax nañuy ñuy def ak yooyu noonu. Euh, waaw loolu mënul ñàkk parce que c'est une réalité sociale. te réalité sociale bi ku nekk ak fi ngay agir rek dina am réalité. et tu dois prendre ça en compte. c'est pas y a pas écrit sur mon front ingénieur. wala sama parcours bi yépp on le voit pas kon su ma ñëwee nii. là pour la plupart bon dañuy jàpp ne ah c'est une jeune fille rek peut-être li muy wax xamu ci dara comprendre nga. dañoo xam ne 5 ans jël naa 5 wala 6 di ci di di am si am si expérience. de ce fait bien sûr dina am expérience yooyu c'est assez traumatisant parfois. Mhm. nga dem yan anecdote bon anecdote yu bari c'est pas seulement dans le monde rural di nga dem pour euh, am ay euh, dem pour euh, expliquer ce projet pour par exemple avoir des financements et cetera. nit ñi xoolaat la ne est-ce qu'il n'y a pas d'homme dans ton équipe pour venir faire ça parce que ñoom dañoo jàpp ni peut-être un homme dans mon équipe pourrait mieux expliquer ce que moi-même je fais te boo ñëwee nga wax leen man maay porter projet bi man maay tabax et cetera. parce que yaa ngi gis waaw c'est misogyne mais ça à dire loolu c'est au-delà de sama projet loolu benn réalité sociale la et aussi vous vous êtes en train de participer à ce changement-là parce que le fait ngeen di di may invité ci plateau ñi di ma di ma gis. di ma déglu ça va changer aussi mentalité yi te loolu aussi c'est un travail aussi très important mhm. parce que dañuy wax entrepreneuriat au féminin mais entrepreneuriat au féminin pour mu am aussi il faut am benn ñu am benn société aussi buy ak buy permettre famille ñu épanouir mais ku ku ku par exemple amul force de caractère u Neymar nga def ko yenn yi peut-être mu abandonné mhm. nga wax ko yenn yi aussi amul confiance noonu parce que man bu may dem peut-être def naa trois ans xam naa sama projet mais su ma commencé woon ne damay dem foofu mais peut-être que damay génnaan ne bon j'arrête. parce que mais lu tax par rapport à tous ces stigmatisations ak yenn kàddu la yi nga woo ennemi réew lu tax yow abandonné woo ne non je vais m'affirmer. man de gisuma lu ma tàmbali de di ko abandonné. Hmm. lu tax parce que voilà jusqu'au bout parce que lu lu may commencer rek c'est que man dama ci am passion. Hmm. du ma dugg si lu ma neexul. Hmm. à partir de ce moment la je me fixe l'objectif que je dois y arriver mm -hmm. maintenant nag yàlla mooy def réussite ou échec mm mais parcours boobu dinaa ko def def sama c'est-à-dire def sama effort yëpp yu ma war a def pour arriver à mes objectifs mhm. léegi su ma waree réussir naa réussir su ma waree am échec te man gëmuma sax échec parce que processus bi yëpp bi ma def je pense que am naa si lu ma ci gagné mhm. Mhm. donc tout le temps il faut ma dem te c'est pas parce que Euh, te je pense aussi euh, je vais remercier mes parents parce que éducation boobu laa am. Mhm. c'est pas parce que euh, je suis une fille. wala je pas parce que je suis une femme que expertise bi parce que mes parents m'ont à l'école j'étais dans la même classe que des hommes. Mhm. on a appris la même chose. Mhm. donc suñu waree wax mën naa wax. en tout cas dans ce domaine. par rapport ak bi réussir parce da nga def lu grave da nga défi. mooy défi bi le maire de Kayar euh, Kayar yàlla na ko yàlla xaar na te mhm. maire jox la opportunité boobu mhm. les opportunité boobu la maireu Kayar jox mhm. nga gi da nga étudier foofu mu am te yaakaar naa loolu nga defal waa kayaar am na yeneen dëkk yu ko mérité est-ce que autorité étatique bi wala organisme de financement étatique yi yu si mel ni DER ak yooyu noonu jël nga sa projet dem soumettre ngeen ko est-ce que yow t'as t'as soumis ce projet à l'État boo bénéficier si un accompagnement. bon jot na présenter euh, rencontrer quelques par exemple euh, directeurs d'agence d'État mais c'est vrai que euh, jotuma euh, déposer comme ay organismes comme la DER et cetera. Mm-hmm. Euh, et aussi man je pense que ñun par rapport à e, expérience bi ñu am dans le monde local mun nañ travailler ak yenn agence dans le dans le domaine de l'agriculture aussi. Mm-hmm. te maa ngi leen maa lancer un message parce que je ne vais pas taper sur eux. parce que aussi est-ce que man def naa effort bi aussi pour dem ci ñoom. Mhm. defar tout c'est pas c'est pas le cas. c'est pas le cas parce que am année yi je pense que alhamdulilah am nañ ay reconnaissance yu bëri. Mhm. bien que reconnaissance yooyu c'est vrai que c'est plus extérieur mhm. que au Sénégal. ce qui est dommage. ce qui est dommage ce qui parce que <coughs> euh, je pense que aussi entrepreneurs yi waruñu tout le temps di daw. ñun aussi je pense que euh, def nañ beaucoup de choses les gens en ont parlé et cetera l'État aussi doit s'intéresser aux gens. L'État aussi doit s'interroger à ce que nous faisons parce que aujourd'hui je pense que bu ñu demee ba travailler avec la mairie d'une ville et de plusieurs villes parce que du modèle boobu rek la ñu implanté et bu ñu demee ba am expertise boobu mën nañ travailler avec euh, des des des des des organisations dans le domaine de l'État te aussi État bi dafa war a gëstu aussi xool li ñuy def aussi accompagner ñu mais te pas tout le temps ñun ñoo war a tout le temps di daw di daw di daw di di di dem à ça comment comment noo gisee euh, l'économie verte ndax fulaal nañ ko au niveau du Sénégal oui ou non. l'économie verte euh, pas vraiment parce que aussi je pense que loolu réalité la à travers le monde économie bu qui n'est pas très connue là et aussi nous on est dans des pays avec des réalités aussi économiques. Euh, euh, qui sont là. Mm mais je pense que modèle économie verte bi suñ si jàppee parce que euh, maa ngi wax mais man environnementaliste la écologiste la. Mhm. te moi je je crois en la préservation de l'environnement. Mm -hmm. mais préservation de l'environnement nekkul seulement sociale. Mm -hmm. préservation de l'environnement dafa am dimension économique. bi ma lay wax recyclage recyclage ñaata millions moo ci nekk. Mhm. des déchets organiques yi ñuy am dans la rue mais ñaata millions moo ci nekk processus de transformation bi rek mooy nekk problème bi. te je pense que su ñu amoon ay projet pour redynamiser c'est-à-dire am benn chaîne de recyclage comme dans certains pays mais mun nañ créer énergie mun nañ ci tabax mun nañ ci mun nañ ko utiliser comme compostage mun nañ ci def lu bëri parce que technologie ça technologie yi ça existe te buñ si buñ si buñ si defee benn benn étude et cetera mun nañ ci créer de la valeur parce que l'économie verte aussi elle se base sur euh, le fait de réutiliser c'est-à-dire yow doo consommer rek sànni mais li ngay sànni am na beneen utilisation bi ñu si ma mun a def. Mhm. mais ñun dañuy ñëw rek sànni ko dajale ko fenn bàyyi ko fa. Mhm. te loolu xaalis la. Mhm. ay milliards yow fa nekk te ñenn pays yu comprendre nañ ko la preuve certains exportent donc c'est-à-dire déchets yooyu c'est pas des déchets moi les appelle de l'or suñ ko utiliser rek mun nañ booster suñu économie bu baax. je vous en prie. waaw borom daaru maam Thierno dafa génn Ndakaaru dem ba Sikori. dëkk fa forage a nekk ci dëkk ba ay ndaw ay tool ay daara jàng alxuraan tool yi nag li ñu fay bay dafay bëri ba ñoom duñ ko mën a dundee te léeg-léeg ñuy jaay njaay mi yéex xaw ma naka la ñuy def mais kenn ci njaboot gi ñu ngi may yónnee message ne ma dimbali ñu ñu am numéro pour xool naka lañ koy booleeg sëriñ bi comme ça sëriñ bi am bu fekkee am na stratégie bu ñuy def ba garde loolu ce qui est intéressant c'est aujourd'hui euh, vous montrer aux Sénégalais mais ça c'est la... je pense que ça la chose qu'on peut faire euh, merci beaucoup déjà à Pape Oumar d'avoir porté son choix sur vous pour vous inviter sur le plateau parce que nous on se on s'attarde tout le temps à tirer sur net, sur notre jeunesse en disant que ni waaye ouais, surtout jigéen ñi mbaraan teg greffe cheveux naturel c'est vrai hein, quelque part tuuti euh, dama leen di sànniwaale xeer <laughs> euh, dem tour def anniversaire bu ngand def ay affaire defante de voir ces genres de progrès, mm -hmm. mais psychologiquement, on se dit, damn, c'est ce dont on vous veut dans ce pays. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que ce même modèle que vous avez réussi à Kaya, il a de cela peut-être euh, deux ans, trois ans ou mm quatre ans, est-ce que ce même modèle peut être perpétré partout où besoin sera Est-ce qu'il y a possibilité de le faire Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que l'or Déjà, euh, euh modèle bi on l'a implanté à Kayar on l'a implanté ailleurs. Mhm. te euh, c'est possible. c'est possible de l'implanter partout parce que ñun lan la ñuy def dañuy utiliser ce qui est là localement importer wu ñu matériaux. Mhm. ay pneus la ñuy utiliser ay bouteilles sachet en plastique hangar bi ñuy defar sax Kayar moom laay jël toujours en exemple parce que le premier te voilà décharge bu nekk foofu la ñuy jëlee ay bouteilles jël fa ay pneus mais matul ñu ñëw dakaar fii bon dakaar on sait que avec l'urbanisation moo gën a bëri ay déchets. Mhm. ñu yóbbu ko foofu tabax ci c'est-à-dire modèle bi ce n'est pas compliqué li ñuy utiliser c'est localement ban bi mu ngi fi ñax baa ngi fi lépp mu ngi fi lépp mu ngi fi donc fépp si Sénégal mën nañ ko tabax te loolu objectif suñu objectif la woon. deuxième chose aussi quelque chose que je n'ai pas dit ñu ñu koy tabax si communauté bi lañ bokk. maanaam waa Kayar ñoo ko tabax. ñoo ñoo ko tabax. jeunes yi dañ lay former. boo ñëwee yow am ay compétence même mhm. si boo amul compétence manœuvre nga et cetera mais dañ lay former. dañuy jël suñu temps formé la nga tabax parce que plus tard suñu bëggee implanter yeneen hangar foofu kan moo koy tabax dañu jël ay nit yu indi leen ci communauté bi loolu ça marche pas waa communauté bi suñ ko tabaxee dañ koy bëgg soo former ay seen ay jeunes da créer ay emploi nga utiliser seen matériaux yaa ngi créer ay emploi hmm. borom charrette buy indi ndox wala buy indi pneu yi parfois ci chantier bi yaa ngi créer emploi ñaata nit ñoo liggéey ci chantier bi mat na plus de combien de personnes cest à communauté bi ñun dañuy dem ba projet bi dafa nekkoon projet communautaire ñëpp si jàpp. Mhm. maire bi di may ceeb affaire bi neex. Mhm. parce que noonu la ñun noonu lañ ko jàppee te man gëm naa ni modèle bi mun nañ ko implanter fépp. Mhm. fépp si Sénégal il faut quoi il faut que l'État s'y mette. que l'État si mette que les particuliers si mettent yaa ngi wax quelqu'un qui est intéressé. maam Thierno Borom Darou. macha allah qui est intéressé ça me fait très plaisir. d'autres personnes seront intéressées même si l'État ne s'y met pas. nous avons le pouvoir aussi de changer les choses. Mhm. parce que man si je m'étais mis en tête que ah forcément état bi daf ma war a jàppale wala dama war a dem ak état bi pour changer les choses ça ne marche marchera pas dama dem euh, Rwanda euh, à l'occasion du euh, d'une remise de prix ma am mu am benn phrase bi ma marqué chacun de nous est le gouvernement. Mmh. chacun de nous intérieurement mën na changer les choses à son échelle. man su ma jëlee sama décision keneen jël décision mais Sénégal fan lay toll suñu xaaree ñu ñëpp ñu ne dañuy xaar ñu may ñu temps wala ñu dem temps mais parfois lu ndaw mën na changer les choses chacun à son échelle et le gouvernement. chacun à son échelle échelle gouvernement. Mhm. noo gisee la jeunesse sénégalaise féminine. ah. <laughs> raciste pourquoi tu me sépares des jeunes. mais parce que xamul tax parce que l'entrepreneuriat féminin Pape Sidi xaw ma ndax yëngu ko. Eh, mais le WhatsApp yaa ngi wàcc. lan WhatsApp yi xale jigéen foofu lañuy ñuy defee entrepreneuriat de. Euh, ba li foofu la jaay. Mhm. benn siletement da ngay gis fukki jigéen rangu ko ku nekk laal ko statut boo ko bëggee jënd danaa la xaaral ma yónnee ko sama xarit bi. mais actuellement Pape yónnee ko ba mu dem Colobane. benn benn statistique moo génn il y a quatre jours uh-huh. premier en Afrique ci entrepreneuriat féminin. Mhm. et et premier dans le monde si entrepreneuriat féminin. waaw loolu loolu c'est normal loolu loolu barki démb la statistique bi la. kii bi la note bi génn non jigéen ñi mën góor am na si dëkk bi. mënoo leen yëpp sax parce que euh, entrepreneuriat féminin féminin benn terme rek bi ñuy wax léegi euh, actuellement la. mais suñu yaay ñu ngi il faisait l'entrepreneuriat féminin suñu maam et cetera dañuy dem marché di jaay man sama maam da dem jaay marché. Mm-hmm. dañuy mam marché di jaay jël initiative jël seen xaalis seen économie di ci jënd ay légumes dem jaay mhm. wala def yeneen commerce loolu entrepreneuriat la parce que yaa ngi jël décision yow nga defal sa bopp créer de la valeur c'est-à-dire que ñun on l'a pas appelé entrepreneuriat féminin mais c'est de l'entrepreneuriat et c'est traditionnel c'est chez mhm. les femmes sénégalaises les femmes d'Afrique en général duñ toog seen kër dañuy dañuy dañuy dañuy xarañ dañuy cest à dañuy bëgg di créer di defar duñ toog rek noonu ah jox ma lii et cetera et cetera yu si bëri yaa ngi wax vente en ligne bi ah di kii mais loolu c'est bien ñu ngi jël au moins initiative def dara. Mm-hmm. maa maa leen di tooñee loolu naan euh, <laughs> pour ñi nga xam ne ñu ngi ñuy door a dap mm-hmm. je vois beaucoup de commentaires de gens qui demandent à vous joindre à vous contacter xam naa doo joxe sa numéro parce que damay fiir après comme je suis marié avec toi maintenant. lan waaw sama jabar la. <laughs> donc on donné un, un, autre canevas par lequel il faut passer par ay WhatsApp ay sauf WhatsApp ay Facebook wala Instagram je sais pas après on va donner mhm. mais pour ñi ñuy door a dab aujourd'hui Pape Omar a invité le parcours euh, d'un entrepreneur auto-entrepreneur mm -hmm. Ndeye Marie euh, Ndeye elle a pris trois noms pour elle seule euh, Marie Aïda Ndiéguène en vingt ans elle a commencé à s'investir donc dans ces choses qui ali nature et euh, architecture je vais l'appeler comme ça xaw ma naka laa koy tuddee wala construction wala technicienne wala genre mais en tout cas ñun li ñu xam mooy dafay dimbali ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi grâce à des matériaux de recyclage di dimbale alam bi parce que pneu yi ñuy bàyyi aussi elle va ça ils vont faire plus de 400 ans avant ñuy détériorer parce que c'est du mm-hmm. caoutchouc c'est des plastiques mm-hmm. mu jël ko fexe ba am ci ay bërëb yoo xam ne dafay dimbali ñi nga xam ne ñooy bay te li ñuy bay dañuy bañ mu yàqu te amuñu mm-hmm. fu ñu ko jaayee te mënuñu ko lekk d'un coup ñu mën a am bërëb bu ñu ko denc ça je pense que ça mérite vraiment des encouragements des encouragements de l'État des encouragements des Sénégalais euh, et dire que aujourd'hui nous avons une jeunesse comme ça aussi boo gisee Pawlish gis Ouzin Keïta aussi, il faut regarder de l'autre côté. On a des gens très, très, très pertinents et qui maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Mhm. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. voilà ngay dem xanaa da ngay joxe. mooy man daam benn affaire mu benn élément rek. moo mhm. bëgg ñu commentaire ko si vite fait rek. d'accord waaw ñaan régie su ma mënee may mhm. euh, sama élément boobu parce que li Pape tamit beneen kii beneen débat la damay ubbi fenêtre pour prochain numéro. Pape maanaam sénégalais. maanaam ñun quoi ñun ñun ñun ñun jeunes yi quoi. suñu système laa lay wax suñu système éducatif man loolu sama kombaala la. sama hmm. combat personnel la je me suis euh, approprié naa ko. lii la la suñu système éducatif Sénégal. Hmm. da ngay nekk xale. deux ans nga def ko préscolaire six ans nga def ko primaire muy ñaata huit calculer par Sidi. non non ñun daa man daara ja laa demoon. waaw waaw am problème loolee calculer ma deux plus six muy ñaata huit. huit nga yokk si quatre ans moyen CM. Euh, secondaire trois ans muy. muy quinze. nga def trois ans licence. dix huit muy dix huit. deux ans pour master. nga do pour spécialisé wu nag muy ñaata. quatre ans pour doctorat. nga def vingt quatre ans dans les mm-hmm. te léegi te loolu yëpp bourrage de crâne lañ la def maanaam deux vingt quatre ans yëpp dañ lay jàngal trop commun bi nga am à partir de vingtième année bi lañ la commencé spécialisé wu. booy ut liggéey ñu ne la foog nga am au minimum cinq ans d' expérience tu as fait 24 ans de. donc déglul 24 ans yi eh, mooy genre birino gi nga xam ne daa commencé chaque classe def. léegi maanaam nit ki day daw 29 ans pour am benn liggéey. 29 ans ngay daw si àdduna pour am benn liggéey. Mm-hmm. comprendre ma expliquer. et on combien à jusqu'au bout. ndax lii da ne se construit social travail notre psychologie toute notre enfance et notre jeunesse. Mm-hmm. ce dé système détruit à la limite un bon pourcentage de jeunes. qui pourrait exceller dans d'autres domaines hyper en vogue dans le monde. Mmh. Système hérité chez le colon. La question de l'emploi au Sénégal mérite une réflexion poussée et engagée. Quand un pays est en retard, il se doit de dépasser le classique, surtout quand l'espérance de la vie dépasse rarement les 70 ans. sama benn xarit Malick Dia moo ko posté mu capté ma. Mhm. mais li ma si gën a marqué xam nga lan la Pape Sidi. Mhm. au de vingt neuf ans yii nii xam nga lan moo si gën a grave au delà de vingt neuf ans yeeg yii yëpp. vingt neuf moom am ko fii am liggéey ci réew mi bëriwul yow bii ngay wax nii ñun 32 ans lañu commencé ba mu laajee sa at nga ni 18 ans fekk yu bëri da ko bàyyi mairie ñu defal la taxe non valeur ajoutée TVA bi dañ koy didi mais xam nga alternative bi ma gis ne moom laa gis ne c'est en dynamique de ce que j'ai entendu quand j'ai entendu euh, Serigne Mohamed Badawi euh, le fils de Serigne Fallou Mbacké mhm. ñu dénk ko la construction de l'université de Euh, Touba. Mhm. mooy université Cheikh Ahmadou Bamba. Mhm. mu ne ñoom ci seen programme scolaire dinañ def de telle sorte que xale bi bu juddoo ba ba muy am temps bi muy def euh, six ans yi muy def pour mën a maîtriser yenn affaires yi. on va réduire ce temps def moitié bi c'est-à-dire trois ans lay def maîtriser lii nekk ñiy def BFM di ko maîtriser normal te alxuraan lay jiital. Mhm. te ça je pense que c'est des alternatives ah il faut. euh, y en a qui, qui disent ouais le système n'est pas bien, le système n'est pas bien, le ceux aussi qui sont en train de dire je propose ça pour contrecarrer ça. Et je pense qu'avec ces genres de, de communication, mm. on pourra nit ñi ñooy defal seen choix wu bopp ñoo naan hmm. man je préfère sama doom jaar ci université bii nga xam ne dina fi hmm. jàng alxuraan jàng fi nasaraan génn am doctorat am diplôme am lépp. Hmm. si cinq ans wala six ans. que ki nga xam ne dafa def vingt trois ans wala boo redoublé wul. waaw vingt quatre ans vingt quatre ans boo redoublé wul. <laughs> waaw euh, y lañ lay jàngal bourrage de crâne du la jàngal nga spécialisé doo jàng nga mm-hmm. spécialisé wu te fee da ngay teel a comprendre lépp mm-hmm. teel a spécialisé wu mm-hmm. parce que man dama am ay xarit yoo xam ne euh, man ak ñoom ñoo jàkkaarloo kër ñoom Farba ñoom euh, Baye et consort ak ñoom Mbës dañu jàng ci daara ji bu ñu dikkee classe bu nekk duñ ko def dañ koy tëb. ngay gis koo xam ne trois ans la def def BFEM da ngay gis koo xam ne instant yi mu ngi bac plus 4. Mhm. te ingénieur la en xawma génie civil affaire yooyu noonu. te mhm. il est tellement doué. te alxuraan la jàng ah. yaa émission moo tax ma ne la dañoo war a dañoo war a upgrade affaire yi rek. bàyyi Ndeye Marie mu joxe mu joxe par où faut passer pour pour la joindre pour ñi nga xam ne ñu ngi koy laajte. ah, ah xam naa ah, ah, dinaa joxe sama contact après mun nañ ma contacter aussi sur ma page. Mhm. boo tapee sama tour rek di nga di jot sama. sama réseau yi. di nga jot sama réseau yi aussi di rebondir si li nga jot a wax rek système bi aussi il faut ñu intégrer learning by doing anglais yi li ñu wax learning by doing mhm. c'est-à-dire da ngay jàng en faisant mhm. il faut qu'on ait un enseignement beaucoup plus technique beaucoup plus concret man euh, bi may commencé sama entreprise maa ngi jàng euh, maa ngi jàng ba léegi mais c'est-à-dire lu ma lu ma dem jàng le fait ma appliquer ko loolu moo ma may chance. Mhm. learning by doing dama koy gis doo nekk foofu naan la euh, shift plus. L voilà L CR égale <laughs> wala wala plus mhm, V. Mhm, mhm. non tu le fais. tu le fais by doing tu voilà. apprends en le faisant tu apprends en le faisant. dañoo nga koy bind mais concept yooyu dafa technique te aussi jeunesse bi ñu may leen aussi formation technique. tout le monde ne doit pas faire 24 ans d'études il y a des axes de priorité la formation professionnelle et technique on n'a qu'à la mettre en avant. pour être sur le terrain opérationnel dès le début parce que l'agriculture comme je le dis. benn benn secteur la boo xamante ni tey ji ñu bëri mun nañ ci liggéey. parfois da ngay am na ñuy ñëw Sénégal bu ñu leen waxee Sénégal amul liggéey dañuy ree parce que ñu ngi si àll bi gis nañ ni que si àll bi am na liggéey. donc jeunesse bi jeunesse bi nañ si engagé wu. Uh-huh. ñëpp waruñu toog bureau. Uh-huh. am ñu ñu war a dem si àll bi liggéey ci. may ma seconde rek Ndeye Marie joxe contact bu ñu ko mën a jotee très rapidement on termine. Uh-huh. Euh, fan fan la nga mën a jotee Facebook dañuy bind. Ndeye Marie Aïda Ndiégène. waaw là on pourrait euh, te te te contacter. Mhm. incha allah euh, donc les gars euh, allez-y Facebook wala Instagram vous êtes aussi sur Instagram. je suis aussi sur Instagram mon nom sur Instagram c'est Senegalese Writer. Senegalese Writer. elle est écrivaine en même temps. et LinkedIn aussi. Oh, je suis beaucoup plus voilà sur LinkedIn beaucoup plus active. TikTok nag. non je n'ai pas TikTok <laughs> je ne sais pas comment l'utiliser. yow doo meer. <laughs> del ñëw foofu nuyu TikTok waay je vous donne rendez-vous demain El Hadj Sall Ngolngol tout à l'heure merci beaucoup